Mmh. non may ma tuuti dafa am lu may wax mmh, euh, loolu ban waxee dafa jeexoon man ma pare ci wax ji may ma tuuti ma génn wax li may wax Babacar liiru Babacar non da nga may may tuuti da ma laaj man waxtaan laa woote waaw da may waxtaan nga woote waaye man tam dama man xulóo ma dañuy waxtaan ak ah, déedéet ñooñu seen avis lañu wax Birame Souleye xalaatam wax waxuma côté boobu man waxuma côté boobu man ci ñoom laa Fadam laay wax dafa am benn affaire bu mu def oh, non bàyyi Fadam te du ma ko bàyyi du ma ko bàyyi non dama ko wax xam nga tax dafa génn wax sosal ma man damaa génn wax li am moom mu génn sosal ma nu mu la sosale voilà très bien nee na man ah. tey dama ñuul suba ma xëy weex comprendre man du ma doxee noonu Babacar man Géejawaay laa dëkk. waaw Géejawaay laa dëkk. waaw Aliou moo nekkoon maire Géejawaay. bien sûr comprendre nga. waaw Lat Diop dëkk nekk nekk ministre de la jeunesse. waaw comprendre nga. coupe d'Afrique sport. waaw yóbbu ñu coupe d'Afrique ba. comprendre nga ci laa bokkoon ci ñoom yóbboon. waaw ah, kii nu mu tudd Aliou Sall mu nekk maire Géejawaay. waaw euh, xale yi ku ci am bis mu lay jàppale. waaw te man laa am Géejawaay moo ma ñor. Mhm. comprendre nga. fu ma toll dinaa tudd Aliou Sall. tudd laaj Diop ndax xamul tax. waaw ñoom ñoo ko liggéey biir Géejawaay Aliou Sall la mu def Géejawaay ba tey ma nga fay tege. waaw am naa droit tudd ko. waaw comme waaye suñu defee lu jaaduwul su ma waxee ñu ne man damaa tey ma mel ni tey ma mel naa ñoom la ñuy jënd man kenn du ma jënd man na ma meloon démb. tey naa non dañuy waxtaan dañuy waxtaan dañuy waxtaan. ñoom li ñuy jënd man kenn du ma jënd man na ma dama man na ma meloon dem ba tey noonu laa mel comprendre ku def lu baax ñu wax ko ah, Malick Gakou mu ngi géej di xale yi doon am bis mu leen di jàppale comprendre nga waaw ah Euh, tey euh, Aliou Sall su fa nekkee di jàppale xale yi fu ma toog dama koy tudd euh, ministre des sports Lat Diop ba fa nekkee di jàppale xale yi guddeeg bëccëg ku ci am bis xale bu am bis mu lay jàppale. waaye lu ma ko tudd man Guédiawaye moo ma ñor. Guédiawaye moo ma intéressé moom mi nga xam dafa dëkk Guédiawaye ba pare ne dëkkul Guédiawaye. Kër Masar oh, la dëkk voilà. non non non Guédiawaye non non non. waaw may déglu waaw da nga may déglu fa la dëkkoon fa la débuté léppam fa la def ah. li gën a rafet mu rafetal waaye soo waxee mu ne dëkkuma Géejawaay moo tax lu ko neex lay sànni waa Géejawaay di leen sànni xeer comprendre di wax jaam la. non non moom mooy wóorkat. waaw daa moom la def rek waaw waaw non non dafa nekk xaaral wóorul moom da nga may déglu non non. déglu yaa ma invité yaa ma invité. waay am non dafa am na benn vidéo ne man tey xàmmewuñu ni ñi ndax man moom góor la te jaam la moom mooy jaam bu bon bi ku yées moom la ñuy jënd muy jënd def ay vidéo man mosuma génn ba wax ci Sonko lu ñaaw wala ma wax ci Diomaye lu ñaaw waaw dama lay wax dama lay wax man dama Dakar Actu fi non Babacar ay Dakar Actu rek mu invité yaa ma invité ma invité nekk dama koy génne boo ko maa tontu te dinaa ko tontu li ñamal leen dong la ndax li ma ko bëgg wax ma wax fii te du ko wax fii dama ko ñamal yi te dinaa génn dinaa ko tontu tontu bu pire waaw baax na loolu mu def dafa maa metti ndax d' accord naa dégg ma génn vidéo wax ñu ñaaw d' accord naa comprendre man su ma faree kenn ma far dëgg la ndax Macky Sall ba mu fi nekkee naa vidéo yi gars yi di ko génne dëgg fa gisoo vidéo yi ñu naan su jàpp ma ne jàpp bu moo tax xale yi dee xeex bi am nan ko bàyyi Sonko jàmm am ci réew mi nëbba na ma meloon démb ba tey laa dëkk génne moo ma ñor ku fa def lu baax ma wax ko. waaw léegi nekk di def lu baax. waaw léegi dama bëgg ci làmb ji léegi nekk fa di def lu baax. di jàppale xale yi ñoom ñëpp ñu ngi am jàmm Malick Gakou ku fa def lu wax ko. jërëjëf kon nag su génnee di xam ne. waaw mënu ma jaxase ak mënu ma ah. na solo président Diomaye yàlla na ko yàlla defal jàmm maa ko wax. amiin amiin comprendre nga ah, mooy ba Sonko suñu gouvernement bi yàlla neen yàlla defal jàmm lim seen si ñoom yàlla nañu ko gis ñoom nag di fi nekk bu jax nit ñi seen intérêt bopp boobu ñuy bañ ma di ko wax am seen intérêt bopp lay demee waaw liiru nag léegi sa bopp nag lu ma bëgg tudd non non waaw léegi nag sa bopp nag liiru waaw non non liiru non dafa mu ngi en direct nag waaw non non xam naa ne ñu ngi en direct liiru nag gëmoo maa xam loolu Babacar li ma nekk sama xol dama koy génnee waaw doo bàyyi waaw dama lay wax rek li nekk sama xol dama koy génnee waxtaan ci lamb dafa am na mu wax lu mu affaire yi métti ma. waaw daa ko kooku ko ko. a wax. barke a maa jaxase àdduna. dama bëgg euh, euh, ñoo ngi jégalu xam nga rek. non fii lu euh, aay amu fi ba ñuy jégalu. waaw d'accord naa waaw ndax ma ñëw pour jaxase sama àdduna te mënu maa jaxase àdduna. waaw parce que ñun xam nga li ñuy liggéey mooy liggéey boo xam ne day tegu rek si yoon bi quoi yaa ngi dégg nekkuñu si loo xam ne nii parce que Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk lépp dafa war a rafet lii boo gisee sax ñu def ko maanaam laal ci tuuti parce que lu fi jaaroon la mm-hmm. te boobu ba tey ñu ñun tooguñu fii plateau bi mm-hmm. amul loolu moo tax mais plateau bi ku ne xam ne ne plateau la